moom mooy promulguer décret bi organisé la bu dul loolu sax moom it yoonam. loolu moom mooy Sénégal ko waaw lii non ñoon du Sénégal ñoon ñooy élection yi. xam ah, nga élection yi sénégalais. dialogue bi déedéet dialogue bi du Sénégal la. dialogue bi élection yi la les candidats retenus loolu mooy élection yi. dix neuf lañu. Hmm. ak président sortant. ñii ñooy les concernés les acteurs concernés. Hmm. keneen ku dul ñoom seen new ci les spoliés. quatre-vingt-dix-neuf pour cent c'était des alliés du président de la République. lu dagg fekk moroom ba nag quand même. mais les spoliés. vingt dix pour cent des candidats spoliés sont d'anciens alliés de Benno Bokk Yaakaar. ñoom nga foog na bëgg nañ Benno jóge casting bi moo baaxul y a un problème de casting qui se pose. tey man gis naa ñoo xam ne duñu modérateur duñu duñu candidat. détenus ni spoliés waaye ñooñu lu ciy ci dialogue bi du ñu autorité lu ciy seen yoon ci dialogue bi d' accord Macky Sall yëkkati na ay kaddu jëmee ko ci euh, euh, euh, opposition bi nga xamante ni dañoo refuser ñëw ci dialogue bi mu ne leen en tout cas wax na leen wax ju ñagasan bu ngeen ñëwul seen affaire la defu ñëw ko président de la république mais seen bopp lañu ko seen bopp lañu ko def te mënoon na tëju ci néegam Euh, euh, xaatim décret ne date bii laa woote élection yi te mënuñu si dara dañuy dañuy wuy si ci ci date boobu noo jàngatee wax ji nga xamante ni Macky Sall yëkkati na ko. man de li euh, man de li ma jaaxal lool mi wax ne mënoon na ko lool la Sénégalais yi doon xaar ci moom li tax defu ko moo ma jaaxal. Mhm. li mu wax noonu jaaxalu ma de li tax defu ko moo ma ndax mhm. loolu la moom loolu la Sénégalais yi doon xaar moom jàppal ñu date. bu ñu jàppal date li mu wax noonu. na amoon na sañ-sañ bi. Mhm. ñun ci lañ ko invité. waaye li tax defu ko ñun mu ñu yéem wax bi yéemuñ li tax defu ko <laughs> moo ñu jaaxal te ñun moom loolu lañ tàmbaloon report moo gënoon diis du acte sans précédent la nuir na image am yàqal na réew mi lu bëri du def na ko mhm. diisoo wu ci kenn pourquoi jàpp gi mu bëgg ci diisoo ak nit ñi mhm. en fait lii mooy problème bi président report bi gënoon diis te def na ko yeewu na jóge mel mos ñëw pale na annulé naa élection pourquoi jàpp gi moom bëgg diis reporté bi gënoon diis reporté na jàpp gi bëgg diis. Mhm. moom prérogative boobu mu wax ne am na ku dëgg la daf ko am prérogative la waaye ñun loolu lañ ko doon invité mu def ko te malheureusement defu ko. président ñun mu jàppal ñu date lañ bëgg santuñ ko leneen. mais nee na dina jël décret ah pour waxtaan bi jeexee suba wala ginnaaw suba dina jël décret fixé la date de l'élection boo laajoon quatre vingt cent pour cent des sénégalais. oui ah. ndax président jël décret bi tey ci guddi léegi nga am oui à l'unanimité mhm. waaw kon président na jàpp date na jël décret bi ñu loolu lañ bëgg. mais duñu duñu am élection avant le de parce que li ñu mag Sall li mu waxee mooy que ni ci nawet bi. avant nawet bi dina dinañu organiser élection yi euh, donc le deux moom le deux ñu doon xalaat jàpp ne le 2 avril dinañu avant le 2 avril dinañu mën a organiser élection donc euh, idée boobu moom dañ ko teg président bu organiser élection yi xam nga naa la keroog xam ne moom lu mu dem lu mu am dem ko gën nee na sax fekkee élection yi dafa mel ni bëggul fekkee wax noonu moom bëggul sax fekkee élection yi passation dina ah, bind dafa mel ni passation de service euh, passation de serment bi daal. dina bind sax conseil constitutionnel ba xam le deux bi lu mu ciy wax. Ah, passation de serment bi daal dafa mel ni dafa mel ni président bugg ko fekkee. ah bon waaw. lii rek bugg ko fekkee. lu tax. est-ce que du ki koy uutu moo ko neexul. wala kim jàpp ne moo koy uutu ñoo ko neexul. xanaa président bu dee poulain moo koy uutu Amadou Ba. Hmm. loolu di ko fekkee. <laughs> tey candidature Amadou gi <laughs> man daal yéem na ma. xeeb ngeen Amadou de. ah non ñi ko samp ko njëkk a xeeb. Hmm. koo xam ne sa patron xaaru fi sax sa passation de serment. loolu loolu c'est loolu ça veut tout hmm. loolu wax loolu wax feeñ la. wax man de sa wekk élection yi président du ci dugal loxo. du ci du loxoom wax naa la ko fii. du battre campagne comme ni mu ko waxee comme ni mu ko waxee du battre campagne du wàcc terrain bi du ci dox du ci nag saa Macky Sall bëf la. d'accord mais suñu yóbboo yi comme ni mu ko waxee euh, hivernage bi donc dafay nekk euh, au mois de maximum juin au mois de juin sax hivernage dans le sud. no début hivernage parce que sud bi ñoom ñooy njëkk donc mai revient mai bi Atepa Goudia bi waxoon waaw parce que on est février mars avril mai dans trois mois trois mois la ouais. deux mois non mars na waaw non mars avril tey la ñaata tey la tey tey le vingt six le vingt vingt six mars mois waaw vingt six avril deux mois. waaw vingt six mai trois mois. moo tax ma ne dans trois mois. waaw léegi nag wax bële day ñëwaat mooy waxu Atepa ba mai bi ñëwaat. moo demee dans trois mois. moo tax man la Atepa meem ba keroog laaj nga ma ko man la buum la man la bu ko oyofal. fan la meewu Atepa bi jóge tëbul tëb rek wax mais comme sax hmm. léegi PDS daanu na Bennoo daanu na. PDS six mois la waxoon. njuut nañ leen Bennoo moom un an presque njuut nañ leen. te est-ce que trois mois bi bu ko jàppee lan mooy nekk réaction communauté internationale bi est-ce que dana ko àttan pression bi ñu koy teg attention. su xasee ba jàpp moom c'est fini. waay déedéet jàppoon na waay ma ne jàppoon nañ fi tëbal. oui <laughs> jeex na fii jàpp changé moom léegi dooratu fi exploit jàpp génn ci moom <laughs> dooratu fi lu grave. comme def nañ ko mu neex daal def nañ ko benn yoon. comme euh, euh, qui peut le plus peut le moins. changer date moom doonatu fi problème fi mu toll. doonatu fi problème mais dafa wax tamit euh, benn wax mu annoncé euh, euh, loi d'amnistie projet de loi d'amnistie boo xam ne si nii mercredi après le conseil des ministres dina ko yóbbu fële nga xam ne dina ko saisir dina saisir assemblée nationale pour ñu mën ko jàllale gis nañu Maître El Hadji Diouf nee na moom d'accordul ci loi d'amnistie bi loi boobu pour yow nekk na loo xam ne pour Macky Sall déjà est-ce que pour. réconciliation ak pardon bi mu doon wax keroog bi muy def entretien bi la wala dafa nekk di eh, eh, di setal wala di protéger eh, ses ses proches yi mu fi nar bàyyi te ñoom seen ëllëg wóoragul par rapport seen ëllëg en tout cas euh, xamuñ si lu bari par rapport ak ki nga xamante ni moom mooy utu Macky Sall su fekkente ni ci opposition bi lay jógee d'abord foog ñu leeral ne loi d'amnistie bi camp du pouvoir ñu ci gën a bénéficier wu l'opposition déjà opposition ñi nekk kaso mbaa ñi am daan yu nekk seen kaw loi d'amnistie mën leen cee génne mën nañ cee génn lu dul loi d'amnistie mooy bu changement de régime amee mën nañ leen teggil même daan yi mën nañ leen génne ci kaso yi changement de situation mën na am avec ou sans loi d'amnistie mhm. alors que ñi nekk ci pouvoir bi sans loi d'amnistie mënuñ ci génn donc l'amnistie profite d'abord au camp du pouvoir mhm. d'abord léegi nag lan lañ bëgg a amnistie mars deux mille vingt et la ñu wax ak deux mille vingt trois lan moo xew ci ñaari date yooyu des émeutes il y avait des émeutes des tensions sanguinaires où les mhm. sénégalais ont été abattus mhm. en plein jour ñun ñëpp ñu gis ko il y trop de bavures ci mbedd bi des blessés des amputés des morts ainsi de suite ainsi de suite on amnistie mhm. lan nga ciy jàngat le président il est en train de d'assainir avant muy dem man li ma jàpp mooy Macky daal ni mu taxawee fi mu toll nii mhm. mooy bëggul bàyyi benn gàkk-gàkk ci ginnaaw moo xam digganteem ak opposant yi mhm. li doxul diggante mu opposant yi Karim Wade nañ ko tëj nañ ko kaso xaj nañ ko nekk candidat na na bokk Sonko mi ngi kaso tas naa parteem jàpp naa ay yooyu yëpp na dañ na bokk. Mhm. parce que bu ñu amnistie fee yi. Pastef mhm. day jotaat kayitam. Mhm. ndax fee yi taxoon ñu nangu kayitam moom lañ nekk di effacer. donc Pastef dafay ñëwaat son leader génn kaso ndax charge yi ñu teg ci kaw mba jàpp ko mooy fee yooyu. mooy gatsa gatsa appel yooyu yu ñu ko doon ji appel à l'insurrection yu ñu ko doon génn mm. waaye les commanditaires de certaines exactions ñoom it ñu baal leen dossier CPI source suba day fay mm-hmm. si <laughs> dootoo xam loo li nga wax ni effacé nañ ko mm-hmm. donc mënatoo leen topp voilà donc camp du pouvoir la gën a bénéficier que camp de l'opposition maintenant ci camp du pouvoir am na ñu ko buggul ci camp opposition am na ñu ko buggul ma ñëw si ñi wër Amadou Ba ñëpp bëgg candidature am bugguñu pardon boobu ñu wër Amadou. Ba di ko waxal di ko defal bugguñ pardon boobu la preuve barki démb gis nga ñaari journaliste yu toog ci plateau teg seen commune bëri di wax. Mhm. boo dégloo li ñu wax mën décrypter entre les lignes da xam ne fi président jëm arrangé wul ñoom seen patron. Mhm. pardon bi arrangé wu leen. parce que moom am fu mu leen téye. la preuve no arrangé wu leen Sonko Sonko dafay bokkaat ci game gi. non Sonko li ko génne mooy l'affaire Mame Mbaye Niang. waaw ma ko non waxuma l'affaire Mame Mbaye Niang Sonko ñëwaat ci game gi libre de ses mouvements. Mhm. il redevient puissant et présent sur la scène publique. Mhm, mhm. kenn mënul war a battre campagne kenn mënul janoog moom. war a a battre campagne. effectif am génnaat kaso. Pastef dundaat comme loolu kan moo ko àttan qui peut faire face à Sonko. la candidature de Amadou Ba. moo tax nga dégg waaja naan loi d'amnistie arrangé wul Macky Sall. arrangé wul Sonko arrangé wul réew mi déedéet dafa waroon wax ne arrangé wul ki may wax loo. mais pourquoi Macky Sall bëgg ko def léegi. bon puisque a un candidat